أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبقيكم لنكم وخيوان tey incha allah ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi jël qissatu ibrahim alayhi salaam nabiyun min azami al anbiya min al ulul azmi abul anbiya ibrahim alayhi salaam tey ginnaaw ba ñu jeexalee yonent yàlla saalix tey ñu ngi jël ibrahim mu bokk ci yonent yi màgg yi lu tax kenn la ci ulul azmi xam ngeen ulul azmi juróom lañ nuux ibrahim muusa isa muhammad alayhi salaatu wasalaam tey ñu ngi jël ibrahim kenn ci ulul azmi yi waaye moom mooy baayu yonent yi alayhimu salaam moom ibrahim turam bi lu muy tekki ibrahim mooy abun rahim abun rahimun mooy ibrahim turam dëgg-dëgg Ibrahim la kan mooy papaam moom Ibrahim ibnu Taarix ay Azar lu tax ñu tuddee ko Azar dàkkantal la turam dëgg Taarix la lu tax ñu tuddee ko tur boobu mooy kaana yusaa'idu qawma ku amoon kattan la daan dimbali ay mbokkam loolu moo tax ñu tuddee ko Aazar laqad wulida sayyiduna ibrahim xalilu rahman alayhi salaam fi baladin ismuha baabil ibrahima alayhi salaam xaritu yàlla bi juddu na ci dëkk boo xam ne turu dëkk bi mooy baabil bayna dajla wal furaat bil iraq ibrahima dëkk boobu mu juddoo muy baabil mu ngi nekk diggante place bu ñu naan dajla ak dex googu ñu naan furaat dëkk boobu mu ngi nekk ci iraq ba fii nu toll nii dëkk bi mu ngi exister wa kaana yaxkumu hada albalad malik zalim mutakabbir ismuhu annamrud bun kanaan dëkk boobu ibrahima juddoo benn buur moo fa nekkoon tooñkat buur bu kàccoore buur bu bandi turu buur ba moo doon namrud wa kaana ahla hada albalad yanhituuna al asnaama wa yacbuduunaha min duni illahi jalla wa ala waa dëkk ba bokk na ci aada bi ñu yoroon dan daan yett ay xërëm di ko jaamu bàyyi yàlla xoolal mission yonent yi mooy chaque jour rek saa yu déviation amee rek yàlla day programme benn yonent saa yu déviation amee rek yàlla day programme benn yonent min aadam ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam loolu moo tax yàlla di yónni yonent yi ay déviation mooy am xoolal ñiy démb rek la yàlla rey waa saalix ñuy romb waa dëkk bi di gis ni dëkk bi ni mu màbbe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax fekke na gis na traasu jeexintalu mbugalu waa saalix ñi it ñëw ole ñu jub waaru day talu waaye ñoom tamit ñu continuer ci jaamu xërëm bàyyi yàlla wa ma anna haulai nnas kaanu yacbuduna al asnaam illa an al ajaba min dhalik anna malikuhum an namrud bun kanaan kaana yud'a annahu ilahun wa kaana yatlubu min qawmihi an yacbuduhu min dunillah li gën a doy waar gën a garaaw ci mbir mi waxuma sax xërëm yi ñu doon jaamu waaye buuru dëkk ba da doon wax mooy yàlla nañ ko jaamu bu kenn jaamu kenn kudul moom ku wootewu yàlla nga ak ku dégg la ñu ne yàlla nga ak ki bàyyi nit ñu jaamu la yéen ñépp yéen a yem moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam mu gaaw a réussir mission am bi mu déggee gaa yi naan ko sayiduna wa ibnu sayidina mu ne hee laa tatruni kama atrati nasara isa ibnu maryam bu leen ma jay nit ñi dañoo mën a jayaate da ngay gis benn kilifa ñu jàpp di ko jay di ko jay di ko jay ba ñu weesal ko fu ñu ko waroon a weesalee namrud yamul sax ci gaa yi xërëm gi ñuy jaamu waaye daf leen ne man maay yàlla na ngeen ma jaamu bu kenn jaamu kenn ku dul man ixwatal iman wa fi hadihi albia alfasida wulida xalilu rrahman ibrahim alayhi salaam ci environnement bu bon boobu environnement bu yées bu salte bu taq bu tilim boobu ndax environnement bu ñuy bokkaale yàlla boo xam ne shirk moo fa fees environnement boobu du environnement bu baax te environnement boobu environnement shirk la ndax dañuy jaamu keneen kudul yàlla tabaraka wa taala wa kaana walidu sayiduna ibrahim alayhi salaam yacmalu najjaran wa kaana mimman yasnau alasnaam wa yacbudunaha min duni illahi jalla wa ala ixwata aliman ci jamono bu bon boobu ci dëkk bu bon boobu bokkoon na ci jaamukatu xërëm yi baayu ibrahim ndax moom kenn la woon ci yattukatu xërëm yi dañuy yatt seeni garab weer ko ba mu wow ñu yatt ko def koy estati di ko jaamu wala ñu yatt xeer yi di ko jaamu wala ñu daal di ruyal weñ yi di ko jaamu almuhim ñoom ci seen bopp ñoom ñooy defar seeni xërëm di ko jaamu mu ngi mel ne tey rek sunu photo yi ñun ñooy photo photo yi ñun ñoo koy cadré ba mu rafet daal di koy takk sunu dënn wala ñu def ko sunu biir néeg wala ñu jël plâtre bu weex bi defar ko ba mu nekk misaalu borom xam-xam wala benn waliyu wala benn muqaddam ñu teg ko ci kaw néeg bi wala ñu teg ko ci kaw armoire bi wala ñu teg ko ci kaw bibliothèque bi daanaka bu duggee saal yi ci biir Sénégal kër goo dugg ci saal bi bu la yàlla dimbaliwul trop di nga ko fekk kilifa gu ñu wékk ci fotoom wala STM wala sax yenn saa yi ngay dugg kër gi rek ñu def fi ngan di poster boo xam ne boo nee tëll ci kër gi da ngay xam ñi fan lañ bokk ci wàllu këru diine yi. te xam ngeen ne loolu daf xaram yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko tere yow mi bàyyi ji def loolu xëy na mbir mi mën na laa bañ a yóbbu mais gis nga bu fi boo faatoo jóge fi wala sax nga dund waa kër gi loolu am na lu muy def ci ñoom moo tax bokkaale baaxul bàyyu bàyyu ibrahima boobu doon yett xërëm yi azara la tuddoon wa maa anna walidu sayidina ibrahim kaana yasnau al asnaam wa yacbuduha huwa wa qawmuhu illa anna ibrahim alayhi salaam kaana laa yusharikuhum fi hadha aldalal bal kaana yarfudu zalika bishidda liannahu ala yaqinin min anna hadha al asnaam la tanfac wala tadur wala tuxyi wala tumiit wala turzaq wala tamnacu rizq innama hiya xajara la qiimata laha ibrahima alayhi salaam doonte ne baayam mi ngi doon jaamu xërëm yooyu di bokkaale ay nitam di ko jaamu moom daawu ci bokk daawul bokk ci réer googu parce que jaamu ku dul yàlla dalaal la al ibadatu min dunillah dalaalun jaamu ku dul yàlla rek réer la képp ku ñu jaamu ci kaw suuf wala ku bàyyi ñu lay jaamu wala ku gis ñu lay jaamu waxoo yow ci nga bokk moom da ko daan bañ daaw ci bokk ca bañu ko sax ndànk da ko doon bañ dëgg li annahu ala yaqin ala basira min anna hadha al asnam la tanfa dafa amoon yëg-yëg gu leer gis-gis bu wér xam-xam bu wóor ne lii ñuy jaamu te du yàlla amul benn njëriñ photo yi ñuy takk dama leen di laaj photo yi ngeen gis ci réew mi ñu photo ko di ko takk lu tàmbalee ci photo mbër yi ba ci photo footballeur yi ba ci photo sëriñ yi ku ci wékkoon sa saal benn bi sa sàcc ñëw di sàcc saal bi ndax photo bi mun na ci dara du ngeen ma wuyu mun na ci dara ku ko takkoon ci oto bi oto bi di accidenté ndax photo bi mun na ci dara lu ci dara kon photo bi ban njëriñ la am kon ban njëriñ la am amul njëriñ moo tax moom mu yëg ne ala yaqin min anna hadihi al asnam la tanfa du jëriñ du jëriñ du jëriñ moo ak dem ci bàmmeel yi di jaamu bàmmeel yi moo yem bàmmeel bi nga dem di woo boromam du la jëriñ dara est-ce que déggulul dafa dee wa man adallu mimman yad'u min dunillahi gis nga man la yàlla indi man ismu mawsul la lil aqil mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama bu fa waaji toogoon di woote naan yaa cheikh yaa fulaan yaa kenn du ko wuyu ba yawm alqiyama amul njëriñ yàlla nag wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i isa daan lu tax kon ñu bàyyi yàlla di woo keneen tax ñu bàyyi yàlla di jaamu keneen yàlla nee na man boo ma woo muy la kii ngay woo yàlla nee na boo ko woowee ba yomal qiyaam du la wuyu kon ñaar ñi koo war a woo mais gis nga dañuy bàyyi yàlla dem di jaamu keneen waxuma la laa tan fa mais laata dur du lor du lor bokkaale yi ñuy def yii nii dara du ci lor du jëriñ du lor wala tuhi wala tamut du dundal du rey bokk yi ñuy def nii xërëm yi ñuy jaamu kan la mën a dundal kan la mën a rey bal koo fi yaakaar soo deewee sax du ko yëg day ñëw ne ko diw dee na mu tiit ne loolu kañ la ñu ne ko biig li mu ci guddi la dee mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yëguma ko xanaa dafa feebaroon ñu ne ko waaw dafa feebaroon yenn saa ñu ne ko feebarul de ndeysaan comme tey dama jékki-jékki rek ñu woo ma téléphone xale yi may jàngal jàng siwuñu am ku ma woo ne ma seen papa moo dee Italie moo tax jàng siwuñu ma ne ko daf feebarul mu ne dara jotu ko démb ci guddi woote na ba pare ci guddi gi mu dee haza huwa ya ahbab il faut ñu bàyyi xel borom bi tabaraka wa taala ne dee yàlla daf ñu programmé la budda min al mawt kenn du ci rëcc wala turzaq bokkaale wala tarzaq naam bokkaale yi ñu def nii am ngir njëriñ du wërsëgale wërsëg fan la nekk ci loxo yàlla yàlla mooy wërsëgalaate yonent yàlla muhammad mu ngi wax ne law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama kama yarzuqu tayr su ngeen gëmoon yàlla dëgg-dëgg nu ngeen war a gëmee yàlla dina leen wërsëgale comme ni muy wërsëgale picc yi wa taruxu bitaana picc bi buy xëy day génn day xiif waaye bala muy del si daal di suur këll wa man yatawakkal ala allah wa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la ku jàpp ci yàlla rek yàlla doy la yàlla moo yor wërsëg al rizq bi yadillah yàlla moo ko yor rizq wërsëg wa ma min dabbatin fi l ard illa alallahi risquha gis nga ñàkk gëm yàlla ñàkk gëm ne wërsëg ci loxo yàlla nekk loolu moo tax loolu moo tax yi moo tax bokkaale di am waxuma loolu moo tax bokkaale mais loolu tax mooy yàlla di am parce que yow li tax tey mbër yi am nii xam nga lu tax parce que dañoo gëm ne bëre bi day indi xaalis gëmuñu ne yàlla mooy yoru sëgalaate te xamuñu ne seytaane day wër sëgalaate seytaane day joxe ay moyens seytaane day maye sax doom jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne seytaane di di défi yàlla di lancer yàlla défi naan yàlla dinaa leen may alal dinaa leen may doom dinaa def dinaa def yaa ngeen ko kon ndeke alal set bi yàlla di joxe am na bu seytaane nekk ci côté bi di joxe kon wërsëg ci loxo yàlla la nekk moom Ibrahim xamoon na ne wërsëg ci loxo yàlla la nekk kenn mënu koo joxe ku dul yàlla moom Ibrahim xamoon na ne xeer yi ñuy jaamu la qiimata laha amul benn valeur xalilu rahman saahibul fitra an naqiya moom xaritu yàlla bi borom fitra la woon fitra fitra mooy lan mooy xale yi ngay gis bind bi leen yàlla bind jàngeen ci alquran yàlla mu ne فطرة الله التي yàlla mu ne bind bi nga xam ne moom laa bind nit nit ni ko yàlla bindee buñ ko buñ ko changé wuloon nit ki day nekk xaqan jullit muslim kaamil mais environnement bi moo ko changé moo la yonte saa sallam mu ne ci xadisam bu wér doomu aadama dafa judd ci fitra mu ne ñaari way juróom ñoo koy changé yu xawidaani aw yu nasiraani aw yu majjisaani say parents ñoo lay changé ñoo lay def yahud wala ñu def la nasaraan wala ñu def la majuus bu fekkee fii ça semble ñoo lay dugal ci tarixa yi ñoo lay dugal ci musiba yi nga nekk parce que ñoom ñoo la changé mais bi la yàlla bindee bu la bàyyi woon rak fitra ngay am bu set wecc dara du la rax ibrahim borom fitra bu set la bu set wecc dara amul lu ci tilim moom ibrahim ibrahim bi mu juddoo ba bisi di romb fa marratil ayaam wa ma zaala ibrahim alayhi salaam yanzuru ila abihi wa qawmihi wa hum yacbuduna al asnaam wa yataajab wa yaqul fi nafsi kayfa yumkin lil insan aqil an yasnaca tilka tamasil wal asnaam bi yadihi summa yazhab wa yacbuduha min duni illahi jalla wa ala ibrahim ay fan di passé ibrahima di xool muy xool baayam di xool ndeyam di xool ay mbokkam ñuy jaamu xërëm Ibrahima di ci waaru naka la doomu aadama di jëlee garab jëmbat ko sa kër ba garab gi màgg nga yett def ko benn esthétique teg di jaamu naka la doomu aadama di jëlee ciment tooyal ba mu tooy def ko xeer dafa dessiné ba mu rafet def ko ab yàlla naka la doomu aadama di jënd ab photo di ko takk ci dënnam naka la doomu aadama di takke weñ gu ñuul naka la doomu aadama di takke béjjën naka la doomu aadama di takke xaaw naka la doomu aadama di takke per Ibrahima day waaru dem ba marché jënd salam bu ñuul takk suñ la nee daf may musal ci cat cat daf may musal ci cat cat bal daf lay indil cat cat la lay indil du la musal ci cat tukulóor yi dañuy wax ne allah du sina nafanno هناك أناس يعلقون السلاسل السوداء في أيديهم إذا سألتم لماذا يجيبون بأنه يمنع لهم من السوء والأين و و و و و, و. تمام أيوه هذا هو ها خاو mooy loolu di génn ci géej te du pitaaw loolu di génn géej te du pitaaw mooy xaaw di ngay gis ko ko takk ci tànkam ci ndiggam mu jàpp ne li am na lu mu koy musal musiba la ayna allah ayna allah ana yàlla yàlla mooy musalaate wala mooy loolu mooy mooy mooy mooy musalaate kan mooy musalaate kon yàlla mooy musalaate du weñ bi du pitaaw bi du gàllaaj bi lenn du ci musalaate yàlla ba yàlla la ibrahima nag da daan waaru bu gisee ñu def loolu day yéemu naka la doomu aadama di defee lii ba pare dem di ko jaamu kayfa yumkin lil insan aqil an yasnaa tilka tamasil wal asnaam bi yadihi summa yazhab wa yabuduha min dunillahi jalla wa ala nga defar ko ba pare nga dem di ko jaamu comme sahaba bi nga xam ne dafa gisoon benn waaye bu defar yàlla tàndarma hunaka min as-sahaba qabla al-islam man jaala ilaahu bi tamr Omar ibnu Xattaab dafa jël yàlla ji da ko tàndarma léegi nag mu xiif mu xiif naan ba jaale mu xiif mu ne yàlla bi abal ma bopp bi mu dagg léegi mu dem ba ci yàgg mu daal di xiifaat mu àbb tànk bi kere lekk ba tàndaram yàlla bi jeex léegi yàlla boobu lu mu yàlla bu ñuy lekk wallahi wallahi wallahi wallahi la hawla wala quwwata illa billah ay mbir la yoo xam ne doomu aadama bu doon xalaat xelam ah doomu aadama bu doon xalaat kon mbir yu bëree bëri du ci dugg lizalika yursiduna alquran wa yuxbiruna anna kasirun min allazina daxalu nnar limaza daxalu li ëpp ci gaa yi nga xam ne dañoo dugg safara la moo tax ñu dugg safara mooy dañoo ñàkk utiliser seen xel dañoo ñàkk utiliser seen xel mais bu fekkoon ne dañoo utiliser seen xel kon duñ dem safara kon loolu tax mbokk yi fokk ñu bàyyi xel sunu bopp fokk ñu góorgóorlu fokk ñu xam ne islaam mooy dëgg lu dul lislaam caaxaan la lu dul lislaam neen la ixwaani fillah ibrahima alayhi salaam gis na ne lii ñuy jaamu te du yàlla jaaduwul wa innaha tamasil la tanfa wala tadur wala taakul wala tashrab walaw arada ahad an yukassiraha lam tastati an tadfa an nafsiha ibrahima alayhi salaam gis na ne xërëm yooyu ñuy jaamu te du yàlla xërëm yooyu ñuy jaamu te du yàlla ay mbir la yoo xam ne du jëriñ du lor du lekk du naan su ko kenn bëggoon jël yatam di ko dammate est-ce que yàlla yooyu dañuy aar dañuy aar seen bopp abadan wa badaa nubuwatu sayidina ibrahim wa huwa fi babil léegi nag yàlla yónni na ko mu tàmbali woote nag ci dëkk boobu nga xam ne mooy babil gaa yi di ko tuddee babilon wa qad kaana tazawaja qablaha bimraa tusamma saara wa kaana aqiman la talid avant loolu ibrahima amoon na soxna bu tudd saara jigéen la woon joo xam ne dafa màgget yemul ci màgget waaye dafa jaasir doom doom moom la ibrahima amoon almuhim an allaha ittaasahu birrisala wa huwa fi babil فقام بالواجب الذي امره الله به خير قيام wa sabara ala al adha wa ibtila wa qaabala altahdid walwaid biazima mu ne ibrahim yàlla yónni na ko mu nekk yonent ci dëkk boobu tudd baabil mu jóg yenu responsabilité boobu mu jóg yenu responsabilité bi responsabilité bi nga xam ne yàlla moo ko sant mu jóg yenu ko ci ay mbaggam yenu ko ci boppam waaye yenu bu mu ko yenu mooy yenu bu rafet la ko yenu yenuwu ko yenu ñàkk pexe daf ko yenu yenu jaam bu yàlla sant liggéey mu jël ko wa sabara ala al aza mu muñ lor yi moom ibrahim lor yiñ ko lor yépp daf ko muñ mbooleem lor yi daf ko muñ ak natt yi ko yàlla natt gis nga ndeke soo nekkee wootekat foog nga muñ jàngeen ci usulu salaasa cheikh bi bi muy jàngale téere bi li mu njëkk a wax ñeenti charte yi charte bi ci mujj mooy as sabru alal ada ginnaaw ba mu la waxee daawatu ilayhi na nga woote ci xam-xam bi ñeenteel bi mu ne la la foog nga muñ parce que saa yoo commencé woote dinañ la lor sikk nekk ci loolu ba yàlla bindee àdduna ba tey jii fi ñu toog képp ku musa woote ngir yàlla dan lay lor sikk nekku ci waaye ibrahima muñ na lor yi ak nattu yi wa qaabala tahdid daje na ak ay tëkku ay tëru ay attentat ay xaste lu nekk comme tey ni ko wootekat yi ci kaw suuf di dajee ñenn ñi leen di tëj ñenn ñu leen di exilé ñenn ñu leen di rey ñenn ñu leen di attentat ñenn yi ñu leen di bal sax liggéey liggéey ba ñu dee kot wala ñu feebar tëdd seen kaw la dootuñu jóg wala sax ñu génne la wala ñu taal sa kër wala ñu tas sa jabar wala ñu rey say doom loolu nii la yàlla binde àdduna yàlla koy liggéeyee rek foog mu nattu la Ibrahima jàkkaarloo na ak loolu lépp wal waid tëru nañ ko tëkku nañ ko bi azima shidda ci mbooleem noo ko yaakaaree rek def nañ ko yonent yàlla ibrahim waaye ibrahima sax na comme ni montagne yi saxee du ñu buuse noonu la ibrahima saxee ci iman moo tax du hasard yàlla di ko tagg ne inna ibrahima kaana umma ibrahima rek benn nation la ci ngëm yàlla ibrahima du ko ndaw de sànq maa ngi leen doon wax ne ibrahim yàlla tudd na ibrahim ci alquran wa zukira ibrahima fi alquran alkarim fi salaasa wa sab'ina mawdi yàlla tudd na turu ibrahima rek ci alquran ci alquran yàlla tudd na ci turu ibrahim 73 fois ci ñaata saar fi xamsa wa isirina suura ci 25 saar alquran 114 la 25 saar yépp yàlla tudd na ci turu al turu ibrahim ci 73 aaya ci 25 saar la yàlla wax ibrahim kon du ko ndaw moo tax yàlla mu ne ibrahima tëkk lii yépp ibrahima dafa sax dafa riposté jàkkaarloog lépp lu nga xam ne daf koy tere def woote bi ibrahima jàkkaarloo na ak loolu wa innama taakkada min al iradi qawmi an daawatihi haajara fi ardillahi lwaasii ba mu demee ba gis ne baabil dañoo gumba tëx lu muuma dañoo mel ne waa sénégal ci yàqute ci mon ibrahima dafa gàddaay yonent bi njëkk gàddaay mooy ibrahim jóge ci baabil dem Palestine daw yóbbu soxnaam mu tàmbali di fa jëmbat pepp ngëm yàlla ci suuf soosu nga xam ne ay tànkam mi ngi fay doog a wàcc ibrahima kon du hasard mu nekk bàyyi yonent yi alayhimu salaam waaye wa imaaman lil atqiya du hasard ibrahima nekk imaamul muttaqin imaam ñi ragal yàlla wa qudwatun lil muwahidin al umana ibrahima alayhi salaam ibrahima qudwa royukaay la moo tax yàlla subhanahu wa taala di ñoo ci quran laqad kaana lakum fi ibrahima laqad kaana lakum uswatun hasana fi ibrahim wallazina amanu maa xoole yàlla daf ñuy jox sax ñun jullit ñi pour ñu roy ibrahim lan moo tax yàlla di ñu roy roy ibrahim lan la wax ñooñu ay mbokkam lan la leen wax is qaala li qawmihi ba mu taxawee ci dëkk bi daan ne ay mbokkam man ak yéen dama leen déclarer guerre hatta tu'minu billahi wahda ba ngeen gëm yàlla kese kese amul bokkaale amul di ko dend ak dara yàlla rek man ak yéen xeex guddi ak bëccëg non non wa bada baynana wa baynakumul adawatu hatta tu'minu billahi wahda wala charte bi li xam nga tey ku ko bëgg a def sax sa kër doo dem ñun ñi ñëpp mënuñu ko fa nga bàyyi yenn saa yi sa papa bon lu ko neex def takk ay gàllaajam takk ay béjjënam nga wax mu ne la fii sama kër la ici c'est ici c'est ma maison hein boo boo kiiwul nga dema nga nga jël sa jabaran nga jëlal say dooma jëlal li nga fi ama ndeysaan nooy def mooy li li arab bi wax ne wardihim ma anta fi daarihim wa daarihim ma anta fi daarihim wardihim ma anta fi ardihim fahimta ya cheikh wa daarihim ma anta fi daarihim négocier ak ñoom feeg yaa ngi ci seen kër wardihim ma anta fi ardihim ma dumta anta fi ardihim aywa haza huwa min al hikma gis nga kon loolu mooy sunu mbir tey mbokk yi ibrahim alayhi salaam wa nazaran li ahamiyatin dawru allazi qama bihi ibrahim alayhi salaam faqad zukira qissatuhu fi xamsin wa isrina sura fi salasa wa sittina aya min alquran alkarim léegi léegi li ma leen waxoon mooy importance bi ibrahima am dëggu gi mu dëgg wér gi ngëmam wér royukaay bi yàlla ne nañ ko roy moo tax yàlla wax 73 fois ci ay aaya alquran ci 25 suura turu ibrahim alayhi salaam bal kama irtabat siratuhu alayhi salaam bi sirati axi ibnu axi lut alayhi salaam wa bi siirati waladihi ismail wa ishaq alayhim assalaam bal irtabatat siiratuhu bi siirati kulli man jaa baada min al anbiya li annahum min nasalihi wa zurriyati ibrahima waxuma rek roy gi ne yàlla ne nañ ko roy soo jàngee histoire u Luut da ngay fekk yàlla yeew histoire u Luut ak yeew yeew ibrahima ishaq ismail da ngay fekk yàlla yeew seen dund ci dund ibrahim waaye mboolem yonent yi ñëw ginnaaw ibrahim ñoom ñëpp yàlla daf leen royloo ibrahim alayhi salaam ba ci sunu yonent muhammad alayhi salaatu wassalaam ixwat al iman daawatu ibrahim alayhi salaam li abihi loolu yàlla naan loolu olof naan mbay ci sa weewu tànk mbay ci sa weewu tànk wanzir asiratakal aqrabin al aqrabu awla hatta hatta bu fekkee sax al kuffaar la yàlla mu ne wa qatilu alladina yalunakum min al kuffaari bis bu nekk ku la jege dafa am responsabilité ci yow pour nga wax ak moom ñun nag da ngay gis ku bàyyi waa këram dem di waar keneen fekk ñi nga war a njëkk a waar mooy ñi la jege gis nga Ibrahim ñi mu njëkk a waar mooy baayam kaana azar yabudul asnaam bal kaana yanhituha wa yabiuha ibrahima alayhi salaam baayam danaan jaamu xërëm mais waxuma da ka daan jaamu mais da ka daan yatt di ko jaay wa charru l umur an yactaqida al insan aqidat al batil li gën a bon ci nit ci doomu aadama mooy mu am pas-pas bu bon aqidatul batil mu fas ci xolam lu bon gis nga loolu moo tax suñu dëkk bi mel nii parce que nit ñi li ñu fas moo baaxul moo tax nit ñi foog ñu foog ñu mel ni ñu mel ku am aqida bu bon sa dara du baax moo tax suñu dëkk bi foog mu mel ni mbokk yi parce que aqida bi dëkk bi fas dara baaxu ci suma takunu hadihi al aqida mawridu rizq rizqihi wa muhattati amali wa gaayatu sa'i da ngay gis doomu aadama boo xam ne pas-pas boobu mu fas ci lay jële lu mu dunde xala ki fas tappale fas trian fas jublan li muy dunde fan la koy jële ci tappale boobu ki fas pas-pas boo xam ne dara baaxu ci ci pas-pas boobu lay dundee ba dee ci lay nax nit ñi ci lay wore ci lay tappalee Ibrahima nan la def mu tàmbali woo papaam moo tax mu ne an yakuna walidu Ibrahim awwalul maduwina li annahu aqrabu nnaas ilay moom Ibrahima papaam lañ dem njëkk a woo ndax papaam mooy ñi ko gën a jege وقد أمر الله تعالى المصطفى عليه السلام أن يبدأ بعشيرته الأقربين yonent yàlla Muhammad loolu la ko yàlla waxoon bi mu tàmbalee di woote yàlla ne ko woowal sa mbokk yi la jege wa kadalika kaana manhaju anbiya illahi jamian fi daawa noonu la nekkee système de vie aw dundin woo xam ne yonent yi dund nañ ko ñoom ñëpp bi ñu tàmbalee di woote ñan la ñuy woo seen njaboot seen doom seen jabar seen baay seen yaay seen seen seen seen ila axiri mbokk yi ibrahima bi mu tàmbalee woote bi daf ñuy jàngal ibrahima yuallimuna kayfa nakunu hatta nakuna duat ila allahi tabaraka wa taala lam yabda daawa ma abi bitasfihi maabudaatihi ibrahima tàmbaliwul di doflooye daan ko bàyyi yow jahannama nga jëm yow bàyyi bidaamaan nga am na fi benn waaye bu doon wax papaam ahlu bidaa hunaka rajul kaana yaqulu li abihi ya aba ya abat anta min ahli lbidaa daiman benn bis mu tëdd fajar mu yeewu yeewul demul jàkk papa yi ñëw fëgg bunt bi ne ko ahlu biddanti jógal ahlu biddanti papa ji ne ko man ahlu biddaa laa yow ahlu biddanti nga zaata yawmin qad haana waxtu salaatul fajri jami nnaas istayqazu wa zahabu ila almasjid li yusalli arrajul allazi kaana yaqulu li abi anta min ahli albidaa lam yastayqiz li yazhab ila almasjid wa zahaba abuhu wa salla fi lmasjid wa aada ila albayt wa harraka albayt min waladihi wa ayqazahu wa qaala ana min ahli albida anta min ahli baza نوم على النوم
ay right ibrahima moom deful noonu ibrahima dafa tàmbali ndànk moog baayam tàmbaliwul di dofloo naan ko bàyyi jahannama nga jëm yow boo dee da nga dem safar balaa nit ñi di bañ daawaam am na nooy waxee am na nooy defee ñëpp dañ lay bañ bàyyi la ak sa woote dañu naan di ay pare nga nga ne waaw ñu ne la yaa moom diine bi jëlal te saa yuñ la waxee mbir mi yaa ko moom jëlal li ngay wax yàqu na sa woote yàqu na saa yoo fexee ñu jaxase la ak nit ñi sa woote yàqu na saa yoo fexee ñu jaxase la ak seen waa kër sa woote yàqu na kon defal ndànk xamal ni ngay waxee jàngalekat yi dañ naan kaay wuyu sa baay ak kaay wuyu sa jëkkëru yaay bu gën a rafet pourtant wax na dëgg de kaay wuyu sa jëkkëru yaay waxul dëgg mais dafa rafetul moo tax yàlla mu ne wa qulu linnaasi husnan xoola yàlla bi mu yónnee Moussa ci kan la ko yónni ci kàccoor bi gën a bon ci àdduna bi muy firawna lan la wax fa qula lahu qawlan layyinan te firawna la firawn firawn yàlla mu ne Moussa wax ko wax bu rafet même ahlul kitaab yàlla mu ne wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati wa qulu linnaasi husnan ah daawa da ngay wax lu rafet bil xikma wa mawizatan xasan gis nga bil xikma ibrahima noonu la def insha allah ci kàttanu buur yàlla tabaraka wa taala àllarba bii di ñëw dinañ gis ibrahim naka la tàmbalee wa baayam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh